droit dafa am lu mu wax si dañoo am benn code bu tudd code de la famille. Mm-hmm. code de la famille dafa am ay articles yoo xam ne daf ko jagleel famille bi. Mm-hmm. maanaam famille bi nan lay tëddee. dafa am mm-hmm. importance. mu ne ci biir famille bi kan mooy chef mu ne c'est l'homme kii le chef de la famille ñun loolu on n'en disconvient pas amuñu ci problème ñun fu ñu am problème. ci code de la famille ñun amuñu problème ci loolu <laughs> mais fu ñu am problème mooy article bi wax. la puissance paternelle maanaam tey mën naa nekk ak sama jëkkër ma am doom man awma benn droit ci sama doom xaw ma ndax yaa ngi comprendre loolu. ak ah, kay waa léegi bàyyi ma expliquer la. Euh, barki démb xam nga bi may woo j'étais euh, je te dis en voyage. Mhm. bi may dem voyage dama ànd ak benn femme femme bi dafa yor benn doomam bu am un an et demi quelque chose comme ça ñu def formalité yi ñu àgg ba ci euh, dernier formalité waa ji ne ko waa ji ne ko foo jëm mun na ko fi mu ne ko euh, ana ana sa autorisation c'est pour l'enfant waaw pour l'enfant moom moo jur enfant bi donte enfant xar rek non ok waaw d'accord ba tey kon yaa ngi ñëw donte mm-hmm. enfant bi am na papa oui yaa ngi comprendre kenn ëppale wu ci sa morom waa euh, waa ji téye na ndaw si lu mot par exemple une heure pour lan pour jëkkëram envoyer autorisation parentale yi par WhatsApp. pour mun koo bàyyi. waaw te femme bi moo jur doomam. non non juru ko ñoom ñaara ko jur. voilà d' léegi moom ku góor ki moom. pourquoi moom bu jëlee initiative voyage ak ay doomam duñ ko laaj autorisation yaay ji. mais yaa ngi ko wax léegi dañ ko bind ci kii bi te loolu ngeen bëgg a dindi daal. mais non non non mais est ce que loolu logique na dama dama la poser question rek. sa akutay tala est ko neexee mun na jël doomam yóbbu. kenn du ko wax ana sa autorisation parentale ana autorisation yaay ji xaar rek xaar rek. non xaar rek. dégg góor bu divorcé. waaw nangu ay doom ni ndaw si doo gis. mais jigéen ak bëri. jigéen non non non non non non jël doom bi yaakaar ne moo ko. non non non non non il faut aller au tribunal. y non mais même que a menacées de de de prendre les enfants. non il faut pas voir non de du ko gisati l'homme aura la garde non sëñ bi on est dans une société ñu ñëpp xam nañ li xew suñu société bi bu waxee noonu donc revenons non revenons à la à la à la à parentale foofu dafa am solo loolu dafa am solo parce que doyen wax na ko sax est-ce que tu d'accord ba tey loolu yow la concerne mais dama ne xam nga sànq doyen dafa am lu wax solo lu am solo mu wax xam nga boo waxee droit da ngay wax des sociétés en mutation xam nga droit dafa ànd ak changement yaa ngi comprendre. Mhm. droit ne le droit n'est pas figé parce que la société elle n'est pas figée évolue. la société elle est en mutation permanente le droit aussi devrait suivre ces mutations permanentes ah. aujourd'hui ñun lu ñuy laaj mooy une autorité parentale mais qui est partagée doom bi ñoo ko jur ku góor ki buy tukki ñu ni ko ana autorisation sox yaay wala non non non wala sax ñu dindi ñu dindi ah c'est ah ah non bien sûr bien sûr buñ ko mënul xale yi bu ñu a gul moom ah non. waaw léegi d'accord kon léegi ah, nañ ko nañ ko defee noonu. maanaam ku jigéen ki ku góor ki buy voyage ñu laaj ku jigéen. loolu sax day indi problème léegi non non man d'accord léegi ba tey ba tey d'accord naa mais léegi nan ngay def xale yoo xam ne dañoo nekk ak seen yaay seen yaay divorcé ak seen papa amatul nouvelle de seen papa pourquoi amatul nouvelle seen papa. non góor ñi léeg-léeg dañuy divorcer bàyyi la dem seen yoon. non dañuy fase da nga leen di soxla da nga leen di soxla. da nga leen di waaw abandonné uh-huh. nga am envie. peut-être dem recommencer une nouvelle vie ailleurs nga jël sa doom bëgg a dem ñu ne non il faut une autorisation parentale koo xam ne gisoo ko deux ans wala trois ans wala déggu ko ñun loolu la ñuy xeex sëñ bi. <laughs> ah loolu moom xanaa nag loolu neex naa dégg. déedéet ankay non doyen mën na ko dégg. ankay ankay loolu neex naa dégg. loolu neex naa dégg. Ramatulaay loolu neex naa dégg.